war nga ne jërëjëf yàlla jërëjëf sëñ Tuubaa jërëjëf président Macky Sall Macky Sall nag yéenam àgg na ndax liggéey bi ne wax ne ñu ngi ko war ba ko weer boo am na différence neuf mois liggéey bi gërëm ñu ko yoroon kon jaar jërëjëf sant yàlla sant yonent bi li mu diggeewaate ku la jox ndékki jox laañ jox la ree bu leen daa jox ree nga war yomb sa première fois mu ci Afrique de l'Ouest kon sa jërëjëf président Macky liggéey na réew mi liggéey na fi liggéey na feneen